demi final bi tey ji lañ doon def final bi dajale woon ñaar fukki candidat yi nga xamante ne bii ñoom ñoo def final tey ñu ne woon fukki góor ak juróom ak juróomi jigéen tey daje nañ fii defale ay question ñu may leen diiru ñetti waxtu ñu toog ñëpp réellement jàll na ci jàmm mel na mu war a mel xëy na la ci suñu kanam rek mooy préparé euh, correction yi mu war a nekk le début incha la ngir ñu xool ñaar fukk ñooñu ñan ñooy ñi nga xam ñooy nekk lauréat 2020 incha allah waaw lim bi tolloon nañ maanaam daal amoon nañ juróom benn téeméer cent yu topp yu si ci concours mi matoon nañ ko euh, six cent quatre-vingts lañ doon au niveau national euh, bi ñu demee premier tour yi nag euh, société bi dafa jël ñeent fukk ñi nga xam ne ci gën a jàmbaare ñoom la tànn yóbbu leen surveiller leen contrôler leen fii ñu toog ñu bind bi bindee itam moo tànn naa ci ñaar fukk yi gën a jàmbaare dajalewaat leen fii tey ñu bindaat incha allah bi ñu bindee tey ji danañ dajewaat euh, lëdda bii di ñëw pour toppaat ko tànn nag lauréat yi nga xam ne ñooy ñooy lauréat 2023 incha allah ñett ñu ko nga xam ñoo ci gën a jàmbaar ci bind ci au niveau ci Sénégal gépp incha allah. waaw xanaa rek moom li ci suñu kanam nag mooy mooy mooy mooy cérémonie bi moo ne ci suñu kanam préparé kii bi ci mois de avril bi incha allah xëy nañu ci ñëw danañ ci ñëw bu baax nañ ko daan defee at mu jot noonu lañ koy def fas yéene itam ñu xam ne concours la ci wàllu gën a fonk liggéey bi ci wàllu gën ko teg ci yoon ci wàllu gën ko jekkal ci wàllu saa yu ne dañ lu ne dañuy évaluer euh, critique waxtaan bu baax waxtaan bu sérieux boo xamante ni bii lu mu laaj dañ ko ciy def buñ pare lu mu laaj ci jooyante bi def ko nii daal la ñuy liggéey depuis boobu ba léegi gis at mu jot liggéey bi day gën a tege ci yoon loolu seetlu nañ ko waxtaan